mën ngeen a ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu euh, seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck. Jotali point net moo leen di jox ay xibaar ci tàng tàng bi Jotali point dale nag jàmm ñoo ànd xëy yér ñu xëyando njiitu réew mi di président Macky Sall ak élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la dàq tax na Sénégal jamono ji fitna ju rëy dugg ci réew mi njiitu mi di président Macky Sall kuy mbokkam jamono ji wax ko mu deltu ginnaaw ci mbir mi te li sañak bala jëmt bu fa amee kër du baax yéen gi de l'info Sud Quotidien ak di ci àjjuma ji jër jàppante yu tarniki ak takk der te nag lépp li ko président dàq na ko yéenekaay gi di leen foo xëy ñu xibaar nañu njaw ma ngi wéy di desu xambe ci élection yi nga xam ne dañu ko dàq ba léegi pënd bi wureeku la démb ci àjjuma ji manifestation yu doy waar manifestation yu tarniki démb moo am ci biir réew mi ñu bari ci biir réew mi mere lool ki nga xam ne moo njiitu réew mi di président Macky Sall jàmmarlo yu tarniki démb moo amoon na diggante ñenn ci askan wi takk der yi yéenekaay gi di wala ay oto yu ñu taal yéen kaay gi di enquête xëy dañu xibaar naan ñu ndakaaru njaay jël jopp ni démb fees na dell ak i takk der waaye nag ñi nga xam ne ñooy manifestant yi xale yi ñoom tim ni démb maanaam bëri woon nañu lool ci mbedd mi mbedd yi feesoon na dell ki xale yéen kaay gi di la quotidien xëy fësa si xët mu njëkk ne un vendredi sans journal bi la mu bëgg a wax mooy ni démb maanaam deret tuur na ci réew mi jàppante yu tar musiba gu doy waar ni ki démb moo xew ci université Gaston Berger ndaxum étudiant la fa faat ci lu jëm ci jàppante yi nga xam ne ni démb am na ci réew mi yéene kaay gi nee maam góor gi Njaay di ancien lutteur ca yi ak grenade lacrymogène yi la yi ak xet gi moo dugg ca biir kër maam góor ba mu mujjee ñàkk bakkanam yéene kaay gi nee violence yi nga xam ne ni démb gis nañu ko ci Ndakaaru jéggi na dayoo violence yoo xam ne maara de l'Obélisque bi démb bëggoon nañu faa dajee takk der yi ñoo fa fees dell waaye xale yi la wër place de l'obélisque yépp dañu koo taal yéen kaay gi de l'info nee na ndakaaru njaay jël jopp ni ki démb ndakaaru yëngu na yëngu na ba ñëpp xam na yëngu na ndax ginnaaw dakaaru ak banlieue bi nga xam ne démb tamit manifestation yi meloon na ni tulleeg màlle démb ci ndakaaru midina tàngoon na démb ci ndakaaru HLM tàngoon na démb ci ndakaaru tilleen tàngoon na démb ci ndakaaru kolobaan tàngoon yoo xam ne démb xale yi wàcc nañ ci mbedd Thiès ak Saint-Louis ak Mbacké yéenay kaay gii di l'info nee na en tout cas Mbaye Sall niki démb Mbour tàngoon na jër waaye tamit niki démb Thiès tàngoon na jër waaye tamit niki démb Saint-Louis tàngoon na jër waaye tamit niki démb Mbacké tàngoon na jër yéenay kaay gii di Vox Populi nee na démb Kaolack tàngoon na jër yéenay kaay gii di Vox Populi nee na tàngoon na jër Louga tàngoon na jër yéenay kaay gii di Bës Bi xëy dañu xibaar naan ñu niki démb ca diwaanu Touba bëri sax ay manifestation da nga may nax kay yéenay kaay gi nee na bëri loo xam ne dañu ko yàq niki démb gaa ya mel ni tulleeg male RFM bu Mbàkke dañu ko sakaase dañu ko yàq ba maara de tale yéene kaay gi Dakar Presse nee sax manifestation yi ni ki démb mel na ne tulleeg male ci diwaanu Touba ndax am na station Total boo xam ne dañu ko vandaliser dañu ko sarsaaxe dañu ko yàq yéene kaay gi de L'Observateur xëy duñu xibaar naa ñu jàppante yi nga xam ne ni ki gis nañu ko ci Sénégal attention lii xëj neexul lii raam sañ ak bala mi dëggantaan la am na ñaar ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan kenn ki ci ndakaaru la kenn ki ci diwaanu Saint-Louis grenade lacrymogène yi ni ki démb dañu koo sànni ci biir Walfadjri yéenekaay gi nee gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu nag li xew ci réew mi ak musiba ma ba kumba gi nga xam ne jamono ji moo dugg Sénégal luy njiig ak luy njaaka li ko waral lépp mooy élection yi nga xam ne moom la ñu élection yi ñu dàq tax na Sénégal jamono ji ma ngi tàkk réew mi jamono ji dugg na ci fin na joo xam ne mën nañoo xam kañ la say dugg waaye nag mën nañoo bañ a xam fin na ji kañ lay génn yéen kaay gi du l'observateur nee na démb bëri na ay oto yoo xam ne dañu koo taal journal bi nee na commerce bi dañu koo sakaase bëri na ay banque yoo xam ne dañu koo yàq jàpp gi démb mel na ne tulleeg male yéen kaay gi de sa nee na démb affrontement bu doy waar bu metti ni ki démb moo am ci diwaanu Ndakaaru yéen kaay gi de les fo ñu xëy fekk fa Thierno Alassane Sall muy ñaawlu bu baax a baax li nga xam ne moo xew ni ki démb ndax Thierno Alassane Alassane Sall daan nay wax ne ñoom dañu doon julli ñu daan leen di gaz sànni leen ay grenade lacrymogène waaye nag moom Thierno Alassane Sall daan nay wax xale yi mën la li leen metti bu leen toog ci réseaux sociaux yi bu leen toog ci internet bi wàcc leen ci mbedd mi loolee kàddu Thierno Alassane Sall la yéene kaay gi di Direct News xëy dañu xibaar naan ñu manifestation yi ni ki démb bëri na foo xam ne amoon na ko ci biir réew mi ndax ci diwaanu xibaar yéen gi di enquête xëy duñu xibaar naan ñu taskatu xabaar yi bëri nay journaliste yoo xam ne ni ki démb ñoom tim dañ leen a bañ a tot ay journaliste yoo xam ne dañ leen a fitnaal leen ñi nga xam ne ñooy taskatu xabaar yi nag dafa mel ni ñoom la takk der yi jamono ji daal di ciblé yéen gi ne na moo tax kuréel yi nga xam ne ñoo ëmb taskatu xabaar yi ñoom nag ñaawlu nañ ko ba fa ñaawlu yam jamono ji sax la nee na nag gilet yi nga xam ne taskatu xabaar yi koy sola ak lu jëm ci seen carte nationale de presse yi jamono ji dafa mel ni jëriñu leen dara ndax démb taskatu xabaar yi yoroon nañu ko te teewul dañu leen fitna la yéen kaay gi di dafay quotidien xëy duñu xibaar naan ñu li nga xam ne ni ki démb gis nañu ko ci diwaanu Ndakaaru ak ci biir réew mi kawo total la ndax bëri ay banque yoo xam ne dañu koo saax-saaxe ay station yoo xam ne dañu koo saax xam ne la ni ki démb moo génn àdduna doomam jiiri Farba Ndiaye addina ci ay leeral nee na lu jëm ci jàppante yi nga xam ne ni ki démb moo am ci diwaanu Fass grenade lacrymogène yi saxaras moo dugg ci biir kër gi yëpp ba dugg ci biir chambre bi biir néeg bi nga xam ne fa la maam góor gi Ndiaye tuddoona saxaar sa daal fay dugg ñu daal di génne dugal ko ci beneen néeg waaye nag gis nga biñ ko dugalee ci beneen néeg fanweeri minute rek lañ si teg mu daal di ñàkk bakkanam inna lillahi wa nga xam ne tamit moo ñàkk inna wa inna ilayhi rajiun kooka tamit Alpha Tunkara la tudd inscrire na licence 3 département géographie yéen a kaay gi di Tambour Quotidien ci xën mu njëkk mu ñu fekk fay Ismaïla Madior Fall daan nay wax ne proposition de loi bi ci groupe parlementaire bu PDS fa la jugee ñu daal koy adopté ci commission daal koy voté ci assemblée nationale mbir mi noonu la demee waaye nag président Macky Sall du initiateur bi yéen a ne dàq nañu la procureur a kaay Alioune Tine jamono ji nag moom li muy sàkko mooy Ousmane Sonko ñu daal koy libéré waaye tamit détenu politique yi ñu daal leen di bàyyi yéen kaay gi di mise point ñu xëy fekk fa Thierno Lo muy wax ak njiitu réew di président Macky Sall daan na koy wax ne jàmmarloo bi du mooy régler mbir mi waxtaan mooy régler mbir mi ngir nag ñu mën dem ci élection yoo xam ne leer lay doon moom Thierno Lo ci biir journal bi nee na ko président Macky Sall yaay gardien a doy waar yéen kaay gii président na ko organiser ay élection ci ni mu gën a ñi nga xam ne ñuy waa États-Unis ñoom ti wax nañu ak njiitu réew mi président Macky nee na ñu ko respecté li nga xam ne mooy calendrier électoral bi yéen i kaay point ñu xëy fekk fa Mamadou Ndiaye mi nga xam ne mooy coordonnateur alliance pour l'émergence du Baol moom nag daan wax ne ñi nga xam ne ay kuréel lañu nekk ca bitim réew dañoo war génn seen loxo ci mbir yi nga xam ne

pëccëxoo gi nga xam ne jamono ji nag Sénégal pëccëxoo na ko ak violence bi nga xam ne moo dugg ci réew mi bëri na nag ay yoo xam ne ay joueurs sénégalais yoo xam ne naqarlu nañ ko ba fa naqarlu yam ku ci mel ni Kalidou Koulibaly ku ci mel ni Pape Gueye ku ci mel ni Pathé Ciss en tout cas li am ba des daal lii raam sañag ba la jëm te bu fa amee kër du baax mën ngeen a abonné ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu euh, seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck. Jotali point moo leen xibaar ci tàng tàng jotali point net ay xibaar yu wóor ay journaliste yu